Sidi Lamine moo tax nit ñi xam ma aussi jàngal na yeneen i yu am solo yoo xam ne ci moom laa ko jëlee. mais du woon problème du woon dara moo ma jëlee ci Sidi Lamine déedéet jàmm ak salaam la te ba léegi relation yi laa am ak ñoom dama fay dem di leen seeti euh, moom benn yoon lañu ñu gisante ba mu fa jógee léegi parce que benn yoon laa fa dem fekk ko fa dugg biroom nuyu ko waxtaan ak moom après génnaat. donc euh, jam la dal ba fi may wax ak yow su ma soxla ci Sidi Lamine Niass damay jóg dem ba ma woo téléphone. mais da dem quelques temps après un mhm. an deux ans après. Mhm. Sidi Lamine dàq fa presque ancien est ce que yow bu da nga jàq euh, da nga xamone ce sa contrat bu ngi waaj jeex mo tax nga c'est man bo ne ma jàq contrat CDD aw ma ko nag Walfadjri CDI la amone contrat à durée indéterminée je fais partie des pionniers de fadjri je fais partie des anciens de fadjri Sidi Lamine Niass. So fa 100 cent ans quatre dimanche mu dem ba fayatul a je Lamine Ben, je le dis pas pour me vanter la ma def ko ma ñaar dama ak ñett dama comme non dafa ay yu mais Maxi dit non c'est un père à moi. ça quand je le dis famille y a quelque chose. Oh, non non non non bokkuñu mais c'est-à-dire. xam na suma papa parce que ay saalum saalum rek xam na sama papa mais du bokk bokk amul prouvé moo ma bàyyi woon Walfadjri ma dem nag ba mu gis ci man farlu ak bëgg li may def danaa la raconter benn je dirais pas du anecdote parce que c'est dëgg la benn xew-xew bu musaam Walf euh, dañ toog ci bureau bi di waxtaan moom ak les responsables tu sais li ma nekk Walfadjri je n'ai jamais été un responsable boo xam dañ ko notifié ci papier et pourtant les réunions de responsables, da ko doon fekkee kon kooku am na lu ko am na fu ñu ko teg mu suñ bind ne bi tey nommé nañ ko temps mais bu responsable yi di réunion damay ñëw toog dama koy fekkee kon cela veut dire que je suis un responsable kon am na fu ma teg alors ñoom responsable dañ toogoon di waxtaan ci kaw boobu gontu seyguma bi ñuy wax Sidi ci man la nekkoon di wax naan di ma remercier ci liggéey bi avancement bi may def ak yooyu avant muy daaneel ma def choc buntu Walfadjri déglu bax li ma la avant mom muy daane man wàcc naa sama auto dafa pan ma jël taxi di traverser tali bi pour dem ben moto bu ma mbëkk ma taaru ñuy wolé ne leen bi tey la moto mbeuk si Lamine dafa ci pelu wacc fek kay di arrêter taxi mu ubbi portail bi auto la taal genn ak auto ñu dugal ma ci auto bi man la won ma ngi tedd ci auto bi papis eh, papis eh, bi nek TFM papis nu eh, nu papis ki waaw man man ba Papis du ma may euh, du ma mere wala day lekk moo tax tur bi fàtte ko <laughs> Papis la woon ak Sophie Awa Dekon ñoom ñoo nekkoon ci oto bi ak man ak Sidi Lamine mais maa ngi dégg Sidi Lamine di wax téléphone parce que otoom buy wax téléphone baaf li lay lay uyo quoi muy expliquer muy wax médecin bi naan ko dafa def choc bu fekkee bopp bi dafa am problème bu nécessité ñu yóbbu ko léegi en Europe ñu utal ko léegi billet daggal ko mu dem en France ñu faje ko bu ko dara dal xam nga kooku ngay employé nga dégg lu mel noonu da jox remercier c'est-à-dire lu ma mën de ma parce que il a il a fait beaucoup de choses donc c'était ça mais du un problème contraire non non non non man naa fa lu bari Je naa fa ba def ci deux ans xawma dem trois ans après la loolu mais problème contraire non non non non ça n'a jamais eu lieu non loolu amul moom man il la amone ci Walfadjri waaw contrat à durée indéterminée voilà donc j'étais bien assis à Walfadjri Té ba fi may wax yow bu ma jógoon pour dellu Walfadjri damay dem awma ma fa ben arrière pensée awma fa ben xulóowaale